mbalax lañu am mom la ñuy porté fu mu mën a dem ci biir loolu it diwo yooyu ngay wax kilifa yooyu nga tudd yépp way no wayandoo naa ak ñoom tey ku mel ni Youssou def nañu ñaari diwo xeex sibiru man ak moom ñoo ak sama sœur Viviane ak ndem si yàlla si nday nday Mari Ndiaye Gawlo yàlla na ko xare aljana ak suma mag Souleymane woyandoo nañu aussi yaa ko tey waaye gis na ni ma la bëggee mu invité ma Bercy ñu woyandoo ko mu nekk lu rafet sénégalais yëpp euh, rafetlu ko Ismaïla Lo woyandoo nañu ci benn projet boo xam ne Papis Konaté mi moo géré woon production bi carapide com mm-hmm. man ak moom ñu woyandoo jigéenu ndakaaru njaay bi nga xamante ni morsom la te ma def ko man ci sama répertoire Baaba Maal woyandoo nañu waaye li ñu woye génn gul baakat mi moo ma yóbbu këram mu dugal ma ci studio ne ma pap déglul morso bi defal li ci sentir kon je pense que ni tey tuñu tenoor yooyu yëpp woyandoo naa ak ñoom loolu nag dama koy sante yàlla bu baax jàmm ak salaam rek laa sit ak ñoom bi may dem dem naa waxtaan ak ñoom xamal leen ni daal jot na ma jël sama yoonu bopp ñaanal leen ma ñoom it ñu ñaanal ma ma ñaanal leen vraiment ma dem ci jàmm mais amuñu benn xaar ma yàlla amuñu benn problème